jërë ngeen jëf mbokk internet yi bàyyi xel Info 7 TV ñu ngi leen di nuyu di leen siyaar di rafetlu ànd bi ngeen di ànd ak ñun ñu ñëw ak rek ci xibaar bi lay tiktokeur bi la nga xam ne mooy Samba moom nag xam ngeen ni dañu ko jàppoon ci ak càcc goo xam ne doon na ko amal moom Samba moom mi la nag ñu ngi ko téye woon fële nga xam ne mooy diwaanu Lougaloo tey jëlee nag euh, tribunal euh, bu Louga jël nañ ab dogal ngir tëj ko luy tolloog ñaari ati kaso maanaam ñaari at yoo xam ne daal moom Samba moom mi la da koy tëdd ci kaso bi ba pare teg ko amaan buy tolloog ñeenti junni maanaam francs de amende moom lañ ko teg moom Samba Ka tiktoker boo bile kon nag xam naa ni ca biir kaso ba lay amale li nga xam ni mooy tiktokam Info 7 TV bii leen di ànd ak ñun di abonné tey bés kolos bi lépp luñ leen wàcceel ngeen bokk ci ñi koy njëkk a jot takk ndeeru askan wi fii